Thank you. juróom-ñaari soldat yi Salif Sadio jàppoon en otage mujjee nañu leen libéré niki démb waaye bi ñu leen bàyyee dañu agsi ak loxoy neen maanaam sans arme bu ñu sukkandikoo ci kàddu Robert Sagna bi nga xam ni RFM moo ko doon interroger njiite rebelle yi dafa daal di confisquer matériel yooyu nga xam ni suñu soldat yi moom la ñu yoroon. ñu jàpp si lu ci mel ni ay fusil ay gilet pare-balles ak casque armée sénégalaise bi nga xam ne daal dina communiquer ci boobu libération waxul ci lu jëm ci matériel yooyu ñu confisqué ba ci Salif Sadio ak ñi ko wër. Thank you.